waaw sama gars yi pare ngeen ah de pare naa mais nag tey ginnaaw bi ma leen nuyoo bëgg naa bala ñuy dem nag ci waañ bi di defar li nga xamante ni moom mooy recette du jour bi. nañu félicité champion yi Balla Gaye ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo Balla Gaye mon ami félicitations Modou Lo mon copain je t'encourage donc tey nag ñamu mbër dëgg la ñuy defar achi parmentier bu dëgër boo xamante ni euh, bëgg naa ko yàkkal euh, Balla Gaye ak euh, Modou Lo fair play rek Sénégal la ñu am làmb ji lañu am. donc nañu yéeg defar benn hachis parmentier bu neex boo xamante ni bëgg naa yow mii di ma seetaan nga mën ko reprendre wax naa leen kontaan naa ci yéen sama gars yee ngi abonné fu nekk donc nii lay demee rek bonne humeur ak neex-neex ah duñu fàtte actualité bi fii ci Alphie Cuisine donc ñu yéeg defar benn hachis parmentier boo xamante ni képp kuy seetaan di ko mën a reprendre mais nag façon Alphie Cuisine lay doon aywa ñu dem. waa Aïcha mi ngoog de teg naa bagage yi de viande hachée bi soble baa ngoog fromage meew euh, beurre pour purée bi euh, donc mi ngoog euh, bagage yi dama ciy ñëw au fur et à mesure may expliquer recette bi mën nañu tàmbali teg dëwlin bi toujours soxlawul muy sens ñu daal di def nag viande hachée bi premier choix mën nga dem ki lay jaay ndawal hachée la ko parce que man moom bëgguma bëgguma viande hachée yi nga xam ne dañ koy defar ba pare bi ko jaay parce que du wóoru daal mooy mooy loolu man daal damay bëgg su ma demee ci kiy jaay ma ma ma peese mu hachel ma moom laa gën a wóolu bu ko defee nag ñu tas ko euh, moment bi nga xamante ni gis nga kudd bi ma koy yëngal daf lay permettre nga am loo xamante ni euh, su ndawal bi changé couleur da am lu lu lu réparti lu tas moo tax toujours du ñu dindi kudd bi di di di appuyer tout le temps bi toujours dafay Euh, bii benn cube la bu ma gis bu bu ñu def ay épice loolu de lañ wax am na ñoom curcuma ak ñoom curry xam naa moo tax mu jaune noonu dañ ko def rek yàlla baax na donc bu ko defee nag ma def euh, tuuti herbe euh, de province ak tuuti xorom xet gi gilli xam naa sama dëkkandoo bi léegi mu sone di laaj laajte luy xeeñ moom dafa sopp moom waaw moom foog na lu lu lu fi xeeñ rek war na ko war na ko ñam mais yàlla baax na comme ñun sénégalais dañu bëgg ay partage bu ñëwee ñam rek dellu si donc ñu def herbe aromatique bi ni ngoog euh, daal di yëngal bàyyi xet bi xel bi xet bi gos la daal di jàll ci légume bi euh, benn soble benn courgette poivron rouge ak ñetti doomu laaj moom laa def tey ñu mélangé ba lépp harmonieux toujours yëngal bi daf ci am solo euh, moo tax sama kudd bi duma ko bàyyi benn yoon waaw dama yëngal rek dama yëngal rek waaw boobu yëngalal ndax ci suuf bañ a jàpp yëngalal ndax mu bañ a xëm yëngalal pour euh, mélange bi ñor bi yëpp uniforme maanaam soble beeg yëpp ñorandoo mi ngoog après nag euh, bu ko defee moment bi nga xamante ne euh, sauce bi dañ ko war a bàyyi muy ñor ñu puus ko teg ko daal di jàll ci pomme de bi tamit purée bi maa jël samay pomme de terre bopp baxal ko xolli ko presque pressé ko waaw bëgguma man ay sachet purée yooyu nga xamante ne ngeen xam luñ ci def bu ko defee ñu daal di def tuuti xorom jël nag sunu beurre lu toll ci cinquante grammes euh, ana jaaykatu beurre yi ku fi dugal sponsor rek ma limal la waaw waaw maa ngi fii mën a jaay ba léegi euh, ñu daal di jël nag euh, li nga xamante ni moom mooy fraise pomme de terre bi daal di jàmb yëngal fii nag dafay laaj doole tuuti yàlla bu la fekk nga añ teel ko defar de lii boo xiifee doo ko mën de maa la wax lii togg dafa ànd ak cawarte mi ngoog donc ñu pressé ba am purée bu lisse ñu daal di ñëw nag ci élément liquide yi muy meew ak crème fraîche crème fraîche bi laa jëkk def euh, lu toll ci 10 centilitres après ma def meew tamit lu toll ci 10 centilitres daal di def poobar def laaj loo xamante ne kenn sant ma ko mais yàlla baax na lépp ci découvrir ay saveur yu yu bees la def naa nois de muscade ndax sama xel bi dem tuuti ci gratin dauphinois loolu tam daf ciy baax nga daal di def nag sa meew jàmb ba sa purée lisse nga tege na le de côté avant montage bi di ñëw nee naa la sama gars yi sama bagage yi damay bëgg di ko partager ak yéen parce que recette bi ni ni ñu ko bindee man du ko defee noonu dama koy bëgg yokk samay affaire yoo xamante ne boo koy ñam danga naan waa kii lan la def ci kiiwam waa kii moom lii sax loolu ci suuf lan la ah jigéen da ngay bëri fen de yàlla boo nekk sénégalaise moo tax it nii daal lay demee nii lay demee ci Alphie Cuisine euh, lu soplu ne ñu dugal ko lu nekk ñu koy essayer xam nga palais dafa war a ñam lu ne waaw mën nga voyager à travers les papilles sans pour autant nga déplacé fi nga toog mi defal meew waa sotti tuuti meew ndax pure bi ñëw bu mu yolom trop bu mu dang trop mi boo defee lu toll ci 10 centilitres meew daal di yëngal nag tarkaal la tegee na le xëccal sa plat bi nga xamante ne mooy jëm ci four bi muy plat à gratiner yi ñuy faral di gis am na ci commerce yi léegi si chinois yi defar nañ ci foo tourné am ko fa muy yomb ba nga xamante ni et puis donc mi Euh, préparé ko donc ñu ñëw rectifier waat sauce bi terminer assaisonnement bi sànni naa ci noonu tuuti suukar parce que suukar dafay génnee goût bi dafay tempene nga daal di jël sa moutarde à l'ancienne bu toll ci benn kuddu bu ndaw euh, daal di ko ci ñu cas daal di yëngal euh, moment bi nag nga xam ne gisuleen ko def naa ci ñaari jaune d'œuf mais ëppal rek ba may filmer ndeke bësuma bësuma ci touche bi mais ba ma defee curcuma bi ba pare sauce bi ba nga xamante ni pare na da ngay fay gaz bi soo fayee gaz bi daal di jël sa ñaari jaune de sànni ko ci lim lay permettre mooy que da ngay am teneur euh, boo defaree hachis parmentier bi donc mi ngoog poobar ñëw na ñu daal di yëngal ba épices yëpp jaxasoo nga réfugié nag sa assaisonnement boo bëggee kaani def ci nee lu ma lekk kaani donc mi ngoog nee naa la moment bii la jaune de yi ñëw mais ba may bës affaire ba demul cat la sànni ci ñaari jaune de daf dina la permettre nga am lu neex et puis hachis bi dafay dafay am teneur boo koy dagg du tas waa mi ngook léegi nag ñu daal di monter euh, hachis parmentier bi daal di njëkkee def benn couche purée daal di répartir euh, li nga xamante ni moom ngay gis noonu kudd bi muy dem ak di ñëw dama koy jàpp ci ndox di ko pour pour euh, pomme de terre bi bañ a kole ci doowu kudd bi moo tax su ma jàmbee damay dama koy dugalaat ci ndox bi daal di ñëwaat répartir dugalaat ko ci ndox bi dellu si waat loolu yëpp tam day am solo ay feem la rek ah yow tam xamoo xamoo dóor yii yëpp da ngay bëgg di def l'intéressante mais tamit baax na tamit nga am genre astuce yu mel noonu boo amee carnet bind ko ci waaw boo amee purée muy collé jëlal kudd bi ngay répartir nga koy capp ci euh, ndox mi di dellu si waat mi ngoog maa la may boobu après ñu jël euh, viande hachée bi gis nga viande hachée bi euh, texture bi ni mu changé par rapport ak yi nga ko gis yi nga ko gisee léegi jaune d'œuf la dama leen ko fàtte woon donc jëlal lal ko ci moom it ba nga xamante ni purée bi yëpp nëbbatu na ñu daal di jëlaat nag waat beneen couche purée moom moo koy terminé euh, ak fromage bi loolu yëpp itam daf ciy baax mu nekk ay hachis parmentier yoo xamante ni sunu façon la sunu méthode la parce que ñun sénégalais yi dañuy bëgg bu ñuy togg mu saf mu am goût mi ngoog purée bi saf na euh, viande hachée bi ma tarkal la saf na jëlal nag sa fromage daal di koy def fii di terminé muy fromage euh, emmental wala fromage gruyère bu ngeen nekkee France bu ngeen nekkee Suisse gruyère baa nga fa tarkal la fa lay jóge jëlal sa gruyère râpé ko def ci ba mu ba mu fees entremont euh, emmental gruyère fromage daal à pâte dure bi nga xamante ni moom la ñuy mën a râpé moom la ñu def ci biir ndax sama gars yi dañuy commentaire naan ma Alphie wax ñu fën fromage nga ci def ah waaw yooyu yëpp da ciy am mais yàlla baax na yàlla baax na comme maa sóoru Alphie cuisine bi rek naa muñ lépp maag yéen la rek ba ba muy jeex donc mi ngoog nag mi ngoog achi parmentier baa ngi ñii li mu saf ëpp na su fekkee nag euh, genre immigré yi nekk fii comme ñi ne Espagne Europe Suisse Londres mën nga jël pot yi nga xamante ni moom la ñuy faral di dugal ci frigo yi mooy sunu pot yi nga xamante ne moom lañuy ñuy tàngalee rek xam nga fii moom toog bis bu nekk bi du du mën ne moment bi da ngay jël sa pot nga def ay portions individuelles yoo xam ne mën nga ko lekk bu ci nekk nga def ci purée def ci tuuti euh, sos viande hachée def fromage mais bul ko dugal ci four bi noonu nga koy dencee ci frigo bi ba moment bi nga xamante ne da añ wala da ngay reer nga daal di jël tàngal donc loolu tam beneen astuce la boo xamante ni ñun bu ñuy togg samedi ak dimanche maa la wax de biiw immigré laa samedi dimanche dañuy togg lu bari tëj ko ci frigo bi ndax semaine bi yëpp dañuy liggéey lii daal la fi indi la fi sénégalais yi nekkee seen jëkkër yi bu ñu wàccee duñu leen tegal ci ceeb yu tàng yàlla boo ci mel ni genre alfi genre mami sobel yu tayee li nga xamante ne euh, duñu togg abisata tamit noonu lay def moom doomam yi noonu la leen di def donc nii laa leen yi def ku ci nekk dinaa ñëw relever say euh, révéler say secret fii ci ci ci page donc jëlal fromage bi waaw wow fromage ba mu saf mais su fekkee nag da nga koy denc bul ko enfourner moment bii nga koy jël euh, def ko ci frigo bi ba moment bi nga war a añ wala ngay reer nga daal di jël dugal ci sa fuur wala nga dugal ci sa micro-ondes ba mu tàng jëpp nga daal di xéewalu ay wa ñu enfourner 15 euh, minutes dina dina doy ñu wàññi gaz bi taal ci kaw taal ci suuf à 100 à 80 degré dina baax 80 degré ñu bàyyi ko ba mu compoté ba tàng jëpp ñu daal di mën a ñëw nag yàq li nga xamante ni euh, moom lañ leen andiloon tey jaajëfal naa leen sama gars yi yéen laa am de yéen laa am mais nag euh, tey dama bëgg remercier Sobel Kitchen mi nga xamante ne plaque de cuisson yi haute yu baax yi lépp moom moo koy defar daw leen fa leen ko fàtte Sobel Kitchen nag mi ngi ci route des Almadies bi soriwul dara ak euh, bisis bi nekk ci route de Ngor bi ma nga ak ay waañ yu amul fenn sama partenaire boobu nga xamante ni jaajëfal naa ko muy Sobel Kitchen euh, donc mi nga ko sama gars yi remercier naa leen jaajëfal naa leen je vous souhaite une très bonne dégustation et au revoir